salaamaaleykum Galsen salaamaaleykum Afrique salaamaaleykum àdduna wërngal këpp nuyu nañ leen jaar nañ leen comme toujours c'est un plaisir d'être là devant votre petit écran pour vous présenter votre émission 100% hip hop Galsen NF sur la SSP TV la télévision qui fait la différence la télévision de la banlieue sama gars bu leen fàtte bés cloche bi yi ngeen abonné euh, tey dugaan nañ ci banlieue bi toujours à la découverte de jeune talents am nañ fi ay booy ñaari ndaanaan yi nga xamante ni. ñu ngi ci game bi ñu ngi koy jaayante di def sa seen petit bout de chemin ama ma droite j'ai ma main euh, Mr Melokaan à gauche aussi maa ngi fi am benn boy bu ñuy naan Wiz Bling sama gars yi maa ngi leen di siyaar. booy da ngeen nagam de lu mu fa demee noonu. <laughs> non never never never ah, never ah, never never. da ngeen reerugul wala. non def nañ reer sax xam nga rek seen bi moo ci ko joxawul quoi. def nga def nga reer ah. non def nañ reer. Ah, présente non man moom reer ko moom quoi. <laughs> yaa siyaare siyaare sama gars yi maa ngi bëggee Mr Am maa ngi siyaar wér. di bëggee Mr Melokaan bi ma fay ci plateau bi. siyaar mm-hmm. SS waaw di wax ñu ngi gis job bi mu ngi nice vraiment. jaajëf. Wiz Bling la ah. ok aka daax rap fii. Hmm. foofu réel maa ngi leen char weer. <laughs> fii ku fi ñëw mu ne moo daak rab <laughs> mais dañ dem rek ba si kanam. yaa asalaamaaleykum. waaleykum salaam. is your boy melokaan laa xew mais aka xabru bi aka xeeru raay borom aka yu bëri aka ren di jéegi waaw maa ngi shout out di kontaan tam si émission bi xam nga SSP hmm. TV lii moom initiative bu nice la. waaw li ci kanam raw li bët daal mooy loolu di ñaan gars yi ñu abonné surtout. Hmm. ay surprise ñi ngi ñëw. incha allah ñu bës cloche bi respect waaye man aka bëri nañ trop faram laaxira meen booy je préfère àjjana meena ah. xam ngeen devise émission bi wala xamoo leen ko. non non non pas encore. xamoo xam nga devise émission bi. devise émission bi fii ñun dañoo am habitude artiste bu nuyooyee. Mhm. foog muy nuyoo. nice nuyoo spécial nag. waaw instant yéen di ngeen nuyoo nii rek parce que bon peut-être que da ngeen bëggoon présenté wu kii dama jaay ay écueils yu bëri kii tamit ay écueils yu bëri <laughs> waaye man sama nuyoo. Euh. waa régie rek. allez ñu sànni ma bii bu fekkee ñame ngeen. Mhm. ñame ngeen ah. pare ngeen pour nuyoo. nice kay sama gars yi. pare leen pour Wizz Bling <laughs> ak melokaan ñooy nuyoo. nice waa régie bu baaxee ngeen jox ñu biir comme ça booy ñu nuyoo. jiya Wizz Bling la next mhm. ko ñun mënuñu raar gem moo ñu yitte woo hip hop bi dañuy fay bro même buñ ci mise wul man daanaan laa si ñoom j'espère que loolu leer na leen si yéen la des projet bi génn est-ce que pare ngeen foo jaar ma jommal leen c'est parce que ñoo ma def seen jinne mënoo ma gis sa cons boo joxul puisque big mu signé sa xel a dal ni uude bu ne day jubbanti jeen man bàyyi hip hop bu daga ci man ma gedd seen game ñoom réere mbir a tax ñuy seetu sama miroir ma mujjee fipp jug pare marqué sama empreinte ay dëmm ngeen su ma doon yàpp sax du ngeen ma seeñu ma bamtuwaat ko ay fan yu néew projet na leen feeñu ay xale bi jàpp na daa boo nee mën na rab teg ci kaar ndax joobatuñ ci gara tos boo yoree mën nga jaar sama famille ñu ma te pourtant maa ngi feeñ télé bés bu mu la bett bu succès ñëwee bañ koy célébrer ma neegis neegis yeah ok ñëw ma benn boste duma cër ci gilleem takkal ma monot yi ma gën a fly rek di wéy melokaan la nem bi yàgg nga ko dégg tey nga dégg hey salaamaaleykum hey kurpeñ laay nuyoo see fi bu doon marché lu ma sax wallaaxi doo fi ndugg see melokaan la kay boo ko gisee gis nga booy bi hey dafa tàng mbàkk tàng nàkk booy bi dalay saw raami laay kepp ba sa gàlle rek daal di taw melo tawul coow boo ko déggee xam ko rek booy bi how dama bëri show bëri bëri melow bari gis nga ow dama bëri niveau bëri game gis nga xepp poom ba ma gisul dégg nga ma ma lekk bit ma siig na dem ma gën a siig Amsterdam sax du ma tere xeeñ ma gën a réew ci waame gis nga ni may tegee dee booy bi dafa sadik waane rabe gis nga jabe hey wax ko ñun mënuñu raar game moo ñu yittewoo pamtu war naa ko sànq xam ngeen bling moom dafa dox ba doog ok est-ce yaa ngi sib marque fu koy tege na ko doon improviser bàyyi ku ma koy teg dooma impro nekk lan SSP dama mën hip hop bi juutal booy sa def ko pe man damay raba dem ma tee damay raba daba ceeb ma jël sa góol booy def ko code foo jaar ma rëbu tee yaa ko tay la ndegas duma ko bàyyi di sànni rhymes yi nii dama mën hip hop bi fiis da marché booy dugg ji nii man wis la yow yaa gën a xam booy bi booy bu kilin la ok bàyyi ñu xaar booy rhymes yi booy man booy booy yow eh mister am charé microphone check gis nga naang man ni may charé gaay genre konkon gama mën hip hop si laa yéen ni konkorong nervous yaa ko teemal ah, yaa ngi SSP studio melo moo dàq rhyme gis nga ni muy duggee studio prise mbaa foto lépp damay joxe rhyme gis nga li ngay déggee bring the watch mi ngi yëngal bopp ay ay Mr Am am nga gan danga ko yàgg a xam yow dong ma kóol ne ma mbaam te nga déggu rab yow xiir sax du ma teree dem dama koy teg ci rhyme gis nga melo dafa dere game boy bi dafa mën a te yow li may dégg danga nga télé game du ñu yeem dama toj Africa signé Kaysit bam ñëpp xam du ñu mën a yeem rap rhyme lyrical bandi dëgg nga woo fii ama boy real boy caa yàgga def rap ci maanaam dañu sista ah dañu ros ni mbalit da dof ji tayit doo mës a gën la sadik yaa MC melokaan la Yeah, I'm a niggas, niggas, niggas, yeah. Fuck with bling nigga. I'm a niggas, niggas, niggas, yeah. Ah, li mooy nga maa koy téye fii ba demee. Uh-huh. yaa ko téye man impro freestyle man dama ci demee. Uh-huh. mën naa kaa téye di ko uh-huh. yóbbu bàyyi fu la neex. dama mën hip hop man su ma koy teg sax Mr Am du jeex. parce que fi may rhyme fi ma koy loxo téye booy dafa sore. damay mën hip hop bi fii ma rhyme si man dama ciy gore. Néegis wóoraw jeex na Néegis. Ah, bit baa ngi jeex Néegis. <laughs> yaa bit ba jeex na Néegis li may finition Néegis. yaa bit <laughs> jeex na Néegis. ay kay ay xabru. bu ma bëggee xam dangay ngay baaxru. xam <laughs> nga xam nga man man man ça me mm-hmm. di teg pitu classique. di gis booy di si foo. Mm-hmm. teg bitu classes di gis booy di si nekk à l'aise kon das hip hop quoi sama gars yi nuyoo bi saf na nuyoo bi métti na nuyoo bi tàng na mais donc il faut que ñu dugg si émission bi tamit mm-hmm. ñu waxtaan ak yéen comme ça téléspectateurs yi tamit ñu mun a xam kan mooy melokaan ak kan mooy Wizz Bling melokaan damay njëkkee ci yow yaa nekk sama droite bëgg naa nga présenter ñu ñu xam kan mooy melokaan mm-hmm. fu mu jugee fu mu dëkk tu vois melokaan en personne yeah, salaamaaleykum hip hop Galsen salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Kër Massar Thiaroy waaw salaamaaleykum mbokku ñëpp fans yëpp waaw yëpp Boy melokaan laaxiram mais carrière bi ñu ngi ko commencé en 2017 euh, fi ñu doon wax Sevenkourou 2018 la ñu àll bi dikkal ñu jël ko en solo ca Royca représenté ko fii waaw di job ak benn studio bu nga xamante ni tamit taamu nañ qualité muy workshop musique en même temps ñu def signature ak Kaysit pour deux ans. waaw di waajal lu bëree bëree bëri. Mm-hmm. Ijo booy melokaan laaxira mien. <laughs> te nga maa ñëw si laaxira meen bi parce que man laaxira bi man dama ko ragal de. te xam naa ne ñu bari ñemewuñu laaxira meen bi moom. naa si waaw laaxira mien moom benn structure la benn slogan la sama logo la. Mm-hmm. maanaam dafa nekk li nga xamante ni dund la quoi. Mm-hmm. aarifuna billaahi ñooy xam li may wax. waaw maanaam. ñun ñëpp dëkkuñu fi quoi ku xam yàlla da ngay xam lan mooy laaxira bien hmm. loolu rek moo waral tënk bi dëgg dëgg gi mooy loolu hmm. writing ok donc le moo le melokaan tey lu waral nga choisir euh, le le nom melokaan parce que buñ déggee melokaan soit que si jëmm la si melo nit kii la hmm. wala peut-être que da nga jël ay mélodie def ko surtout mu nekk melokaan bëgg naa nga expliquer ñu ñëwut quoi waaw melokaan mi ngi jógee ci maanaam ci talent bi parce que avant hip hop ñu ciy dugg dañ ko doon fooyee des fois nga teg bitu reggae ñu def si lu mu laaj nga teg bitu sax mbalax ñu def ci lu mu laaj xam nga gars yi dem ba gis ni booy bi dafa bëri melokaan kon tur boobu noonu lañ jëlee foofu noonu waaye foofu nga ko jëlee. foofu laa ko jëlee quoi. maanaam inspiration maanaam c' est être étatique quoi. ok waaw. paaka ñaari boor nga quoi. noonu la fa demee mu ne fépp quoi. waaw cinq boor sa bopp melo quoi. nice tant que mélomane. <laughs> waaw en mooy loolu mooy loolu noonu. bu eh, ñu waaw maanaam musique la ñuy def quoi defuñu rap rek. Mhm. nous sommes dañu nekk melokaan ci lépp lu ñëw rek. alam bi dañ koy matal quoi. nice mais rap musique la. gis nga. rap mais maanaam complet quoi am na ñoo xam dañ ni hip la ñuy def. Mhm. mais ñun musique la ñuy def. maanaam lépp la ñu tënk. nice ah, à dire que des fois tamit am na ñu dul comprendre loolu hip hop euh, mouvement la quoi. nice donc hip hop dafa ëmb lépp. ça c'est le rap le graffiti le breakdance. le DJing mhm. le slam et parce que ay branches la rek rap juste benn baaraam la si hip hop quoi. Mhm. tu Wiz Bling. yaa ngi Mr Ama Aïcha. muy Koula. doo fee alhamdulilah nice la tuuti quoi nice mu ngi baax nuyoo bi mu ngi baax. baax na waaw waaw waaw. donc euh, comme li ma doon posé sa confrère léegi. Mm-hmm. bëgg nañu xam qui est Wiz Bling. wax ñu kan mooy Wiz Bling. fu mu mm-hmm. dëkk. Mm-hmm. fu mu jógee. comme xam ko quoi. yee siyaare siyaare ah. waaw maa lay siyaaraat bu baax. Mr Ama. waaw li la bëggee waaw Wiz moom soo ma ko laajee. pour wax la comme euh, kan mooy Wiz Bling dama ci dama ciy béy quoi. Mhm. parce que voilà Wiz Bling moo nekk benn boy boo xam ni fii la débuté ndoo si koñ bi nekk boy bu ndaw waa ah. mhm. waaw juddu nag bëgg hip hop. Mhm. et voilà nag mu jaruñu lu ne ah. waaw def si ay affaires yu yéeme yéeme yéeme yoo xam ni démarré wuñ sax carrière solo. waa dama démarré euh, dama démarré ak sama kuréel. nekk si Wiz Bling bi boo ko gisee. comme exemple boo nee Wiz dëgg dëgg dëgg. waaw dama nekkoon man quelque koo xam dama doon déglu Wiz Khalifa. et voilà mu nekkoon sama artiste préféré et voilà turam boobu noonu neex ñu ñu jël ko tuddee ko suñ bopp hmm. avant ñoo toll fii ci hip ah, bañ koy tuddee suñ bopp sax mën nañ ne rabuñu parce que Wiz bi ba ma koy tuddee sama bopp rabu game ma waaye voilà Bling bi moom samay affaire la quoi man hmm. samay affaire la samay bëgg lu xumb genre xam nga nu mu demee <laughs> et voilà moo nañu jël Wiz hmm. te ki Bling bi et que kii kon nag tuddee ko suñ bopp nag ñu gis ni tamit alhamdulilah quoi nem bi am na fu mu yegg sant yàlla bu weer a wéer a alhamdulilah waaw mooy loolu mais bëgg naa nga ñëwaat si si Bling bi quoi bëgg la xumb comme nan parce que bëgg la xumb dafa dafa bëri ay façon bëgg ay chaine mm-hmm. duma ko bàyyi mm-hmm. xam na gars yi dañ may yàgg gis même que avant ma hip hop dama nekkoon koo xam ne dama bëgg suma sañsee jël ay chaîne teg sama baat tax samay wërsëg xam nga rek maanaam xumb quoi mm-hmm. et voilà moo tax biling bi ñëw foofu noonu star nga noonu lañ koy déggal bàyyi <laughs> soo màggee yàlla naa mel ni yéen booy star lañ quoi mais Wizbling d'après li ma dégg nga wax aussi Euh, donc maanaam bi nga commencé hip mm. si crew nga nga njëkkee. laa nekkoon waaw. si crew nga nekkoon. Mm-hmm. ban réseau bi gang. réseau bi gang. waaw gars ñu ngi rab ba léegi wala. gars yi préféré def sa carrière slow. non gars dañoo bàyyi. waaw parce que ku nekk daa am daa am affaire bu la bu la mujjee dab si yoon bi quoi. ok voilà mooy loolu noonu. kenn ki dafa mujj eh, xam nga études yi moo moo gënoon dem ba fees bi mhm. waaw mu maa ngi koy bëggee de passage IBK waaw loolu mooy Pisco mhm. tey ji yàlla dafa dogal sax moo nekk sama ménageur Pisco waaw moom dafa mujjee dem multimédia mhm. nekk si wàllu ki vidéo yeeg genre affaire yooyu noonu waaw maa leen charge mu ngi si audiovisuel bi quoi waaw mais noonu la parce que tamit noonu la am na fi ngeen di toll tamit kii da jël branche bi kii jël branche bi mais du tee dañ koy teewal tout le temps. parce que hip hop moom xam nga dafa laaj teewal quoi. ñëwaat si melokaan rek melo. Euh, oui sa début carrière. nice bëgg nañu xam tamit euh, nu mu demee ndax melo si kuru la jógee wala dafa xëy rek def carrière solo. si si si melo si kuru la jógee. kuru bu ñu fondee woon à Thiaroye mhm. nekkoon kuru bu dëgër. crew bu ñu bàyyiwoon xel di nom de Seven crew mhm. ma nekkoon seeg samay ñaari réel mhm. kenn ki ñu naan ko Cool Yves kenn ki Mr Ada mhm. mais finalement dañ ma mujj ngemb nekk sama ginnaaw nice ñu nga dem bëri quoi waaw waaw waaw parce que fit bi maa ko gënoon am amour bi tamit ba tey maa ko gënoon nam gënoon na. oui xaal bi. nii quoi waaw gis nga mënoo yem sur place. nii quoi non ma yem parce que yow da nga ma woo tey fi nga xamante ne fal foofu laa gën a bëgg. maanaam damay trap sax mais maanaam. Mm-hmm. classique mooy base bi quoi. you know dafa dafa dafa am solo de. parce que affaire yi bi que ça soit wala mm-hmm. wala wala trap wala drill whatever tu vois. nice yëpp l' essentiel que. Mm-hmm. artiste bi na nga mën a nekk à l'aise nga teg lu carré nga teg lu nice. loolu moo si am solo. du mm-hmm. question beat bi. mais li nga si teg. li nga si mooy nice. na nice quoi. mais début carrière bi ba léegi. bëgg nañ xam jaar jaaru melokaan. fan la jaar yan track la def ndax def nga ak crew bi wala. personnellement da nga xëy rek def sa carrière solo commencé def say track. bon melokaan maanaam ba may nekk ci crew bi sax tudd ma woon melokaan. maa ngi tuddoon BMC leeru jant bi. maanaam. waaw mais ba ñu ba crew bi tasee. Mhm. dama jël sama yoonu bopp ne damay ngéntewaat sama bopp. parce que crew bi amaana am na ñu ni defet la jël moo tax ñiy xàddi affaire yooyu noonu mën nañ ni ñii dañoo découragé. moo tax ma ni kon foog ma moderniser loolu jël sama carrière solo tuddee sama bopp tur bi nga xamante ni ku ko dégg da ngay xam ni kii ndaanaan la mooy loolu yàlla dimbali ñu si nekk ñu dugg ci carrière solo bi en 2018 di def ay affaire yu nice ay bagages yu nice aussi waaw di génne ay vidéo ay mhm. single mhm. waaw di maanaam di si nekk ba léegi quoi li si kanam rawul bët du yàgg dara tamit bagage yaa ngi mhm. ci suuf incha allahu rabbi yaa comme ni nga ko waxee rek ay jeunes lañu te gars yi ñoom ñëpp ñu ngi si ñu ngi si game bi franchement ils ont di talent ils ont du potentiel yombul nag comme ni wax xam nga hip hop yombul. Mhm. mais jàmbaar tamit ak lu mu metti metti yëpp. waroo di daw quoi. da nga war a fight quoi. comprendre sànq joxe nga fi benn tour. Mhm. maanaam li nga nekkee woon si crew bi. mais joxoon ma définition boobu lu mu tekki. waaw BMC leeru jant bi mooy waral. Mhm. ki nga xamante ni à chaque fois mooy gën a fës. parce que jant bi heure bu fenkee ñëpp a koy gis. you know crew boobu yàlla defoon na ni maanaam lépp lu ñu génnee bërëb bi lañ ciy gën a ràññee. waaw te avant loolu inspiration bi foofu la jige woon quoi. yàlla dimbalu ñu si. finalement ci la ñu ngéntewaat ci nu boobu mhm. xam nga di euh, di gën a trois tamit di gën a faar xam ni tamit kuru bi la ñuy teewal ba tey. waaw. bëri xaalis moo tax nga ngéntewaat sa bopp quoi. waaw gis nga si la bokk nag. ah bëri xaalis ak yu ñuul yi quoi. balaa ngaa def nañ fi bàyyi dara rek balaa ngaa ñibbi. nañ fi bàyyi dara a jàppale wala wala bëriwul xaalis. yéen war a jàpp ci mais tamit bëgg naa ñu xam. Euh, lan moo motivé euh, melokaan ba mu dugg ci hip hop ba mu dugg di commencé parce que soit que am nga nit ki nga doon suivre wala parce que Wiz nee na moom. Mm-hmm. moom kaana la quoi. Mm-hmm. moom kaana yi la doon suivre. mais yow soit kaana yi la wala kenn ki nga xamante ni si boobu gaal seen la. wala en tant que mélomane. parce que xëyoo tëb tëb rek dugg si rap. nice waaw loolu moom soo ma ko laajee damay kontaan quoi. Mm-hmm. parce que hip hop gaal seen li ma ci dugal wala hip hop sax li ma ci dugal. c'est grace à Gaston Baye seen Bandit May. waaw ba may gën a nekk tout tànk moom maanaam dama doon déglu ay texam di riis muy teg li nga ay ci ay texam loo xam dama ko doon dund quoi di ko gis mm. loolu sax moom ma poussé ba may déglu hip hop xam nga daan fréquenté sama gars yi nga xam dañ doon yor machine des fois sax ma fay leen benn cinq cent pour tëju rek mm. mën a déglu benn bàyyi seen garaawul xam nga mm. finalement ñu koy suivre di ko suivre ba benn moment artiste bu ñu naan ngaa ko blende fël waaw ñu koy suivre xam nga di ko teewal ba benn instant moom tamit mu def jëfi cuune mu gën ñu motiver ñu dugg ci hip hop. wax ak moom di kaas tamit suñu doléance. Mm-hmm. waaw loolu moo ñu gën a motiver amul nag lu ñu dajul ci yoon bi. mais dañ ko gëm. Mm-hmm. dañ ko choisir. Mm-hmm. yasaay. ku mel ni Gaston comme li ngeen wax rek c'est un grand bi nga xamante ni mu ngi si game bi et je le répète tout le ñu nekkee si hip bi dem ba booy di leen jël comme référence. ba ñoom ñu dugg ci rap loolu c'est très important parce que dafa dafa dafa dafa am solo quoi. dafa am solo cela veut dire que ñoom lu ñuy teg. lu positif la ba ku nekk si ñun wala parents yi ñu sañ a bàyyi yenn booy ñu ñëw di dugg si si hip hop bi quoi. Wiz Bling sa jaar jaar. Mm-hmm. maanaam début carrière bi ba léegi nii. Mm-hmm. son yi nga def comprendre mm-hmm. euh, bi nga jëlee sa carrière solo ak léegi nan la fa demee. waaw bañ jëlee carrière solo beeg léegi moom sant yàlla quoi parce que gis nañ ni avancement am na quoi. waaw te liggéey nañ ko te xam nga tamit loo joobul rek tey du la fay. waaw hip hop moom comme li ñuy wax rek ñun dañ ko maanaam dafa ne ci ñun daa mel ni comme si que dañ ko judduwaale mm-hmm. waaye voilà bañ génnee ba crew bi yàlla dogalee mu tas parce que crew bi amoon nañ trois cent na ah. benn vidéo boo xam ni demoon na bay waaj a génn mais after mooy loolu noonu yàlla dogalu ko quoi mm-hmm. mais voilà bañ génnee nag mm-hmm. man ba ma ñëwee waaw relève naa défi bi quoi maanaam kuréel bi war naa leen maanaam lii ni ko ma nii la demee moom man dinaa yeggale yéene bi incha allahu rabbi te ñu ngi si tànk yooyu noonu waaw bañ génnee def nañ ay sound waaw mooy loolu def nañ ay vidéo aussi te sant yàlla daal ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax gis nañu avancement mu ngi am bu baax. alhamdulilah yàlla jëm kanam. amiin amiin gën a góorgóorlu rek ah comme li ma affaire bi du dara dootul liggéey. gëm sa bopp liggéey. Hmm. kenn moomul game bi ñu ñëpp ko bokk. mais foog nga wóolu sa bopp. tu vois nga liggéey nga try gars yi xam la nga nekk si nga def carrière parce que. carrière ngeen war a def ko du juste pour génnee quelques sons rek après tu passes à autre chose. mais carrière la loolu dafa daa am lu mu laaj dafa laaj liggéey dafa laaj suivi. Mhm. comprendre moo si am solo mais en dehors exemple des sons wala vidéo yi nga xamante ni génne ngeen ko est-ce que yaa ngi bokk si li yi wax mbapat yi. ci compétition yi. waaw maanaam si saa yi. saa yi tu <laughs> loolu la gars yi di wax mbapat yi. waaw mm, nga des fois nga takk ngem bi dem. samp sa ndënd saa xam nga. Mhm. waaw saa yi moom yàlla dafa dogal maanaam. comme euh, dañ dafa dafa dafa nekkoon si ñun quoi. bu mhm. ko bëgg di def parce que tey man mi loo xam ne avant avant ma bind teg sax man maam freestyle la ma ko moom dama ko njëkk a bëgg si hip hop. waaw damay toog ak gars yi di freestyle ma affaire bi nekkoon affaire bu ma neex quoi. Mhm. mais saay fa yàlla dafa toogal dama amoon benn ménagère boo xam ni paré wu si woon parce que boobu suñ ko nee saay fa. voilà day wax naa les compétitions yi léegi. Mhm. atteetuñ dëgg. voilà léegi maanaam boo demee mën nga def sa kéemtalaay kattan da koy def. pour génn wala mën a. jël euh, final bi ñibbisi mais maam dañu choisir ku leen neex jox seen final ou bien jël seeni booy jox seen final mais dama bëggoon man di participer maanaam di dem di pa euh, di bokk si si genre euh, compétition yooyu mhm. mais voilà man moom man de nature damay bëgg di bokk mais ménageur bi ma amoon et voilà moo daaxarul woon si yooyu quoi moo dul d'accord ne saay fa quoi yaa ngi saafe yaa ngi si mbapat yi. waaw man mun naa ne ci mbapat lañ ma gën a xamee que ci game. Hmm. waaw. da nga koy waaw ci mbapat lañ ma gën a la tur bi gën a wóyee daal. waaw. boobu ba léegi yaa ngi koy continuer ba léegi wala maa ngi koy continuer ba léegi. Hmm. waaw. comment tu arrives à par exemple def saafe yi wala concours yi tu vois say son yi ngay bëgg a teg xam nga. Hmm. nan koy mélanger quoi. non affaire yi nag euh, day métti mais dañ koy jaayante quoi parce que saafe moom méttiwul. di ko freestyle nekk sa bopp rek. Mhm. kon bu heure bu ñu la yee man je ni war nga mën a nekk à l'aise quoi. Mhm. même bu dee benn saafa bi nga xam day dem sax ba suba. Mhm. yow boo amee maîtrise war nga mën a dem ba benn x bi. maa koy wax ci sama sound bi nga xam mi ngi a génn vidéo bi di Nooda hip hop. maanaam ñi ngi wax suñu jaar-jaar lu bëri ci hip hop. mooy ni que moom dafa war a être bien cultivé quoi artiste bu nekk da nga war a mën a cultivé ba buñ la yeewoon ne saay fa am na sax da mhm. koy yàqamti quoi par rapport ak texte lépp mhm. programmation la méttiwul mhm. quoi du coup par rapport nag ak man ni ma koy defee méttiwul quoi parce que comme li ma wax rek gis nga saay fa apprentissage la rek quoi da ngay dem tu vois say moroom yi ngeen firi ngeen saay fa di freestyle donc loolu dina tax tamit nga yokk sa capacité quoi. Hmm. mais en dehors de ça est-ce que est-ce que melokaan mos na bokk si ay ay concours rap. ay euh, am na yu ñu ci bokk yoo xamante ni ñenn jël nañ ko. Hmm. yenn ay demi-finale. waaw mais lu si mel ni ay wàkki wurus wala flow up euh, bokk guñ si quoi. Hmm. di ko am na ñu koy proposé sax. mais maanaam ñi ci ginnaaw. ñoo ne ñu gën a liggéey quoi. waaw loolu la. donc yan yan concours nga nga a jël. waaw jël naa ay concours lu ci mel ne ay Malika ay euh, comment dirais ay caaro sur Mer. bari na daal bari na. waaw macha allah. Wiz. am na ay concours yi nga jot a jaar si sa sa carrière. waaw à part des bi nga commencé rap ba léegi am na si ay concours yi nga jot a jaar. Mm, comme maanaam maanaam ñun mosuñoo ñun mosuñoo dem cypher bindu pour def quoi. Mm-hmm. mosuñoo am nañ cypher yu ñu jaar mais dañu invité woon pour ñu ñëw play mais concours yi concours rap yi nga xamante ni ñu ngi am si si Sénégal. comme melokaan lu mu wax en dehors des cypher am na ay concours yi nga xamante ni dem na si participer participer na si. Mhm. mais est-ce que yow mos nga mos nga xëy nga ñu dugal la si benn compétition bi nga xamante ni concours de hip hop la. oui. Hmm. waaxi wurus bi passé. ok waroon na dem. Hmm. waa mais voilà bañ xoolee daam am boo xam ne dese woon nañ ko parce que tamit. nit ki mm, lu lu lu li ne ci yow. maanaam bu fekkee comme talent mooy dem jëli ko. waaw alhamdulilah quoi. Mm-hmm. sant yàlla mais voilà daa day am ñu nekk sa ginnaaw. Mm-hmm. am ñu lay jéem a busteloo di la pañaay mais parce que ñu ngi ko doon roy ñoom ñu ngi si doon wax. Mm-hmm. incha allahu rabbi waxi wurus bi passé waroon nañ dem. mais incha allahu rabbi bii di ñëw. waaw incha allah pare nañ pour dem quoi bu soobee yàlla. pare ngeen pour dem ci. incha allah incha allah. Euh, bëgg naa ñëw si sa sa vidéo bi ma seetaan. bon xam naa ni Wiz ñaata clip la am oui oui j'espère am na am na am na am na quatre ou trois ah. quatre ou trois clips. oui oui Wiz lu tax mu tàmm. Uh-huh. bu génnee son. Mm-hmm. mu kilibee ko. <laughs> waaw sant yàlla rek. Mm-hmm. parce que affaire yi moom xam nga rek. mooy loolu quoi. waaw bu gisee buñ génnee son euh, clip ko maanaam dañu bëgg ñun gox gox bi ñu nekk di def. Ah. waaw dañu bëgg maanaam ñun di def lu kenn deful. Mm-hmm. et voilà dañu bëgg di def loo xam ni kenn defu ko. Mm-hmm. wala ku ko def rek. Mm-hmm. ci ñun nga ko amee ko et voilà ñun dañuy sawar ci si def yooyu noonu. waa lu ne <laughs> parce que dama seetaan sa benn sa benn vidéo. bu ñu naan Madior. Madior ak Dior ak parce que man bëgg naa nga nga ñëwaatal ma si vidéo boobu. ak lan moo waral texte boobu maanaam ak son bug naa nga ñëwaat ci quoi. waaw parce que daa mel ni histoire nga fay nga fay nga fay raconté. waaw son boobu histoire la quoi. Mhm. son boobu histoire la. waaw voilà parce que tamit yooyu genre thème yooyu dafa bokk ci hip hop. day am ñoo xam da leen si dañ siy mën a di tëw di gis seen bopp quoi. Mhm. Ah, voilà parce que tamit def nañ tegle nañ exemple tegle nañ presque trois cent yoo xam ne lépp dañ ko égo trip waaw di ko tagg suñu bopp ak di classe ak yooyu. Mhm. et voilà tamit foog ñu changer buur bi kii bi buur bi quoi. indi gars yi ñu mën si gis seen bopp. Mhm. ah loolu moom vraie histoire la quoi. waaw vraie histoire la. Madior ak Dior. vraie histoire bi nga dund. wala vraie histoire bi nga xamante ne da nga gis ku ko dund. parce que man personnellement. personnellement dama seetaan vidéo boobu ma déglu son bi et sama m'a ça moo tax ma ne naa si wax. Mhm. parce que des fois di clash. Mhm. di def ego dafa bokk ci rap. Mhm. mais tamit il faut que ngeen di ngeen di xam tout le temps que di wax si temi dafa am solo parce que étant artiste il faut. toujours da ngay nekk un porteur de voix. Mm-hmm. am ñi nga xamante ni yéen leen di teewal tout le temps. Mm-hmm. yéen tax ñooñu ñu xam ban métit wala ban jafe-jafe la ñu am. Mm-hmm. mais boo leen ko boo leen ko wàccee rek tout le temps di clash ak ego trip. mais après ça ça plus à rien parce que donc message bi nga xamante ni war nañ di ko véhiculer. du fësati. du génn parce que tout le temps ñu ngi ci clash ñu ngi ci ego trip. mais war nañ di nekk tamit ci nga xamante ci le thème. comprendre et franchement nañ dem seetaani vidéo boobu Madior ak Dior franchement bon man sama sama sama vraiment plus quoi. melokaan. oui ñaata video nga jot a waaw melokaan début carrière bi maa ngi defagum benn vidéo deuxième bi mi ngi waaj a génn semaine prochaine incha allah. Mhm. waaw tamit euh, bëri na ay son yi nga xamante ni génnee nañ ko gars yi xam ñu si mais li ñu mhm. poussé ba ñu génnee vidéo. waaw ah. maanaam dañ doon marqué benn empreinte. Mhm. dañ doon testé talent bi. maanaam people bi xam nañ ko sax mais game bi ñoo ko jotul woon xam. ñu génne ay son génne ay son yenn DJ yi naan. amaana du kii mooy def son yi parce que voix bi ñuy dégg ak jëmm ji gis c'est différent loolu moo waral ñu def première vidéo bi tuddee ko man maa fi ne maanaam mu lekk mboolem texte bi nga xamante ni dañ ko defoon wane ni ñun ñoo fi nekk ñun la man maay ki nga xamante ni maa doon wax maa doon def lii ak lii waaw mais lu waral loolu maanaam boo nee par exemple son bi nii dañuy yaakaar ni tu vois ki ki koy ki koy rap ak euh, jëmm ji mm-hmm. ban différence la si parce que euh, du li nga xamante ni dañ ko inventé ko mhm. parce que d' après samay son yi ma njëkk a def sax wala sama son bi ma njëkk a def sama carrière solo. Mhm. maa ngi ko tuddee woon foo biyee di classe ngaa ko blindé. Mhm. d' après son boobu noonu amul rajo yi ñu invité wul mais ku ñu invité bu ma ñëwee toog da nga naan est ce que yow yaa def son bi. même su ma si jaaraatee da nga naan non góobamu yaa def son bi ñu jigee ci loolu génnee benn thème bu ñu naan dëgg neexul. même chose la ñuy déggaat fu ñu invité loolu la ñuy waxaat moo tax ma. génnee benn écotrip mhm. ne man la man maa fi ne man maa doon def lii ak lii. loolu la quoi yeesaay. ay fonkal bi quoi. <laughs> waaw kalfom bi maay kalfom bi. <laughs> yaay kalfom <laughs> man nag sama gars yi nag ñoom daa mel ni dañoo xaw dañoo xaw a nagam quoi. non dama dama xamul nag wala. non non est-ce que du sedd bi est du sedd bi. ñu woote. waa ati ñu woote. nañu woote. wo woote leen. dañ laaj. waaw ah. woo leen régie. rajo mën na ne. ah mën na ne. woo leen <laughs> Régis wuyul <laughs> waa Régis wuy leen mais nag gaa yi biip parce que gars yi daa mel ñoom dañoo dañoo nagam quoi man je sais pas xaw ma xaw ma ah. qu'est-ce qui xam naa ni dañoo soit que dañoo namm seen wala dañoo namm spectacle waaw bokk na ci li ñu namm nag aca dajeeku leen ginnaaw bi ñu jigee ci corona Sogosip hip hop doon la ci man te bu doon lu ñuy seetlu sa vis lu waaye ni nga a ma tànn bis ko ne ma wis wàññil talent bi dafa diis si ñoom bling staff ne ma wis talent bu naas ngay may toosa noonu ñoom dañuy ñor son yi dee ma ñëw pour suuli leen rapport du mbokk moo tax ma jóg gëstu ji tuuri meen talent mooy fay demal gëm loo ko ñi ko toogewul wallaay bu coow ji yuuxu jógee fi ko foogewul sa xel bi laa toog loo bind foog ma bokk si fi daaree rab la booroot see bro doo jëlee kopp fii am ñi mu boorab dugal bopp rocci làmmiñ te boo ma jaayee prek xam ni law bee respecté seemiñ yaa yaa ah oh shit yegg si naa flow yu jàmm jeex na melokaan mooy jaan bi matt seen jiit architecte si bit bi rouge boo koy sangoo deret man ngay jàppale musulman ci veine bi boo ko buggul foog li nga gëm oh. teg tànk teggi uh-huh. microphone bi ngeen yàgg sóor laay jekki ci nekki yow gis nga booy bi dafay dekki ci jekki roi mi laay yóbbu ko biir laaxira jaxal na ma jafal na ma yóbbu la biir safara roi mi teg di ko imporo du texte melo mooy dof ci kaw biir bi war la ndell waa yaa bii next ok mister yow la nga bëgg texte wala freeze taal yaa mi sa am la nga bëgg teg si wala fris. ñëw taaya. yaaw li may def neexu leen dan dañ leen géej ni maam li maamu maintenant le troisième sens génneel sa saani tàccu rappeurs yi léegi comme hip hop dañ ciy boole comédie amuñ ginnaaw tojuñ fenn di ñor di pyramide <laughs> neegis neegis neegis neegis <laughs> ay charé charé ah, Fall ok on joue ci terrain bi maa def différence ñoo bokk équipe mais supporters yi maa ci ëpp fans maa ci toujours pay des bi dañ mukk si di ma ñee même su ma jotewul ak kenn duñ ma bàyyi di melo melokaan la nem bi xalif général kulli bu dee tàng ngay jaay man ñoom def kat du wér même si les condamné ku mënul daj mayen mënul sàcc samay condamné mba royu ma ci kenn. léegi. yaaw fi lépp a sotti waxa booy yi di ma taqal pot def rabi job bi daw dépense daal paa moo ma jot xaj yi mënuñ bañ a mbaw ndax seen bukki bi laa boot même su ma deewoon duñ ma fàtte ndax maa ngi ay anecdote may xeeli riim yi booy di toj seen mer ne fee di kaas yi gàttal damay siiw si rap même bu licence gënoon chance talent ma maccal kon carrière bi mënul ñàkk a jóg sans mi di dal deret di tuuru kon foog ñu teg ma choc yi parce que moo ngi ay ay ay baa ma may la texte yi may la thème yi ay ah, am ngëm du foo bu mel ni kooni gëmal ni yaay daan même boo tollul ni tooni ambition bi ngay am gëm ko rekk day am lu metti yombul ni carrière bi tongul melo mooy teg ci ko bit bi xool ko rekk jommul booy bi tongul séeréer moro laa bi jommul def lu naas man da ma mën a bés booy du ma def lu naas gis nga booy bi rab lu ko desel projet la def naa cons def rap tereke la ay am invité nga mbër nga tey nga dékk ku bu la neexee yaramu neen tey nga du melo mooy teg ci waam yi ay koy ci kaw gis nga gis fi benn lyrical non foog wan dama jommi pig si birical melo birigal ayo moson bi ñëwal birigal <laughs> yaa negus negus negus man moom man moom man moom fii laa jaar ma ñibbi comme que dañ may jox ay cours fii laa jaar ma ñibbi man bëriwu ma de sama gaay man bëriwu ma bëriwu ma de. ah nay leer rek man bu fekkee ay kurpeñ ak ak i birig moom ma jaar ni ma ñibbi. dañuy fo rek ma jaar ni ma ñibbi. non ay dóor foofu kaay quoi. ah <laughs> loolu mooy ànd dóor dóor dëggantaan bi de. mais c' est comme ça. c' est comme ça donc ça fait plaisir aussi di am fi ay jeune talents yi nga xamante ni. Mm. nañ leen may laps même de temps yi nga xamante ni ñu mën a dajeeku ñu mën a free. mën a wane aussi seen temps. Mm. donc lu si des rek mooy que ñu accompagner leen si si si volet yëpp ah. incha xam naa ne tamit euh, loolu dina am. bu soobee mm, nice. donc comme d'habitude dañuy ñëwaat ci yenn info yi nga xamante ni am nañ ko au niveau du hip hop Galsen parce que dañuy rappeler rek le 18 décembre incha allah show of the year dañuy def nañ ko waajal incha allah boobu le 18 décembre la. ak show bu Big Brain borom Tiawan Pël moom tamit mu ngi woote Sorano le 26 décembre incha allah rabbi donc y a des produits aussi yi nga xamante ni ñu ngi ci marché bi. génn nañu bu mel ni euh, rap or de Paco Benn Boy génn na le 20 novembre bi tamit mu ngi ci marché bi na ko gars yi dem wuti parce que album bi nga xamante ni franchement am na qualité bu authentique Zos aussi mu ngi si marché bi euh, Chapacholi euh, bu Jaamaan Express. nice bom nañ ko dem wuti aussi ab yo mu ngi si mu marché bi franchement donc euh, comme ça sa waa yi nga xamante ni moo tax euh, ba nga dugg si hip hop. kooku di Gaston Bandi Mike mm-hmm. borom mu ngi préparé cinquième album na ko gars yi bàyyi xel vécu dina génn incha allahu rabbi le le 10 euh, décembre ñu bàyyi si xel donc dem ba le 17 décembre aussi albumu bii di bii bu yëmbal bii di bii benn jaaxal benn xam nga rab mu baarak mu baarak rab mu baarak mais album bi dina génn le 17 di passage le 17 décembre insha allahu rabbi donc ñu hmm. bàyyi si xel album bii di bi le 17 aussi am na beneen sortie bi nga xamante ni tamit dina génn sur le marché boobu moo di albumu Karbala kalbara bu jaamiru kalbara bi nga xamante ni borom correction albumam ndox ci leer incha allahu rabbi dina génn le 17 aussi ñu bàyyi si xel comme ça waa mooy loolu bu ñu fa jógee aussi euh, KS Events au niveau de Bambilor ñu waajal benn semaine bi nga xamante ni du 2 au 8 janvier incha allah 2022 ay journée de festivité ay journée yi nga xamante ni ay graffiti de sensibilisation aussi parce que nee nañu gars ñu bàyyi xel si si graphe bi mm. donc nekkewuñ fi pour euh, euh, tilimal miir yi mais dañ koy jëmmal et plus euh, graphe tamit day day day day lancer un message tout le temps donc war nañ bàyyi xel ci graffeurs yi nga xamante ni ñu ngi ci miir di joxe seeni message donc euh, waa KS Events ñooy woote du 2 au 8 janvier incha allahu rabbi donc dina amaale aussi benn dîner de gala dina amaale aussi benn concert bi nga xamante ni mooy clôturer festivités yi euh, le 8 janvier incha allahu rabbi donc en même temps aussi euh, finalu rap talent petite côte mu nekk benn compétition bi nga xamante ni mu ngi doon daw Mbour donc final bi incha allahu rabbi ñu bàyyi si xel mu ngi war a euh, ñu ngi ko war a def le 23 décembre stade Caroline Faye nañ ko bàyyi xel incha allahu rabbi donc au niveau de Tambacounda. am na benn festival bu fay daw instant bi nu mooy festival de graphisme et en art visuel. donc graffeurs yi dafa dafa am solo tamit gars yi di leen bàyyi xel parce que ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. si si si si graphisme boobu donc gars yi war nañ si mën a bàyyi xel parce que boo xoolee yenn image yu bëri nga xamante ni. Hmm. artistes yi ñu ngi koy ñu ngi koy am graffeurs yi ñoo koy liggéey donc seen liggéey tamit am na solo nañ leen bàyyi xel loolu mu ngi xewee euh, Tambacounda ba léegi dañuy desaat Tamba donc euh, Tambango. la marque Tambango de Ibou Prot Ibrahima Sissoko ñu ngi waajal benn weekend bi nga xamante ni mooy fashion fashion day le 25 décembre incha allah la marque Tambango ñoo fay woote donc ñoom tamit euh, dinañ def euh, journée bi nga xamante ni journée de From la dañuy waxtaani si entrepreneuriat dina amaale dîner de gala ak benn spectacle bi nga xamante ni moo ngi am foofu donc ñu ngi koy bégee de passage monsieur Ibou Prot borom Tambango euh, Urban Style Jazz 3 bi nga xamante ni moo koy teg réseau des artistes managers et entrepreneurs au niveau de Kër Massar tegoon nañu Jazz 1 teg Jazz 2 donc Jazz 3 bi tamit mu ngi war a démarrer incha allahu rabbi le 4 décembre bii di ñëw. M3 à Kër Massar donc nañ si bàyyi xel comme ça gars yi mën fa mën fa dem jaari aussi donc euh, sama gaay mm-hmm. loolu moo nekkoon information yi. Ah euh, def naa ni lépp yemb na. baa ngeen di waajal show yi. waaw pare nañ. ah mm-hmm. parce que am na spectacle yi nga xamante ni macha allah mu war a am si. Mm. si mois de décembre bi. tamit euh, ñun ñëpp ñu xam ni rek hip hop moo ñu tax a jóg. donc nañ ñëw ñu support surtout maa ñi nga xamante ni def yenn spectacle yi mm-hmm. que dañ ko ko namm quoi. waaw dañ ko namm naa ko. namoon nañ ko lool lool trop. ñu instant bi nii si ban projet nga toll. waaw instant yi moom ñu ngi job ay vidéo ñu ngi joob ay single. Mhm. en même temps di joobaale carrière bi si suuf quoi maanaam projet yi. Mhm. waaw ci kaw projet yi sax mën nañ ni féete na boor mais. Mhm. ñu ngi job li nga xamante ni dinañ mën a promouvoir quoi. waaw ci loolu lañ nekk. te dinañ génn par benn benn même bu fekkee sax mois bu ne dina am lu génn soit mu nekk single soit mu nekk vidéo waaw. loolu moo nekk projet bi quoi. Hmm, waaw loolu moo nekk wala vidéo mais instant bi xalaatoo def génne benn produit sur le marché que ce soit EP maxi album du genre wala wala wala instant bi nii si génne single def ko def ko vidéo. Hmm. loolu mooy projet instant bi nii. oui pour le moment loolu mooy projet bi ba ñu promouvoir suñu bopp maanaam ba ñu egg fi nga xamante ni. Hmm. tey jii bu ñu leeree ni bu ñu génnee benn projet teg ko sur le marché. balaa demee maanaam dinañu rendre compte. waaye bëgguñu génnee benn projet boo xamante ni maanaam dañ koy joob joobu yàkkamti après dañ koy déglu benn fan ñaari fan xam nga foget ko quoi. Mhm. waaw parce que ñu bëri tamit euh, sama mbokk yu bëri. Mhm. ñu ngi def loolu dañuy yàkkamti projet projet projet du dara talent mooy fay. waaw te artiste warul viser projet carrière lay viser. Mhm. you know donc loolu nag li la ko mën a may mooy nga def ay single mën si wane yow lii nga mel. pour en cas nga promouvoir sa bopp attirer fans yi ba ëllëg boo génnee projet dina fekk ñi nga xamoon ne boo leen daan piqûre maanaam dinañ laaj euh, bouteille quoi. <laughs> sama gars yi ay daaj yu garaaw lañ yéeme <laughs> ma ah, damaa ragal piqûre de. mais mais mais c'est comme ça aussi parce que boo nekkee artiste. comme li may rek da ngay liggéey li nga xamante ni lu am qualité la. nice. donc balaa ngaa génne produit sur le marché na fexe nga liggéey ko ba mu am qualité. Mm-hmm. donc yàkkamti waleen ci loolu. Ah. parce que carrière ngeen bëgg def du question def benn single wala benn son rek après nga jàll quoi. donc carrière boobu daa am lu mu laaj dafa laaj mm-hmm. liggéey. fa laaj jël leen seen temps parce que ay booy ngeen. Mm-hmm. tawee largement le temps devant vous. donc war ngeen mën a mën a mën a mën a liggéey loolu. comprendre nga wiis fu affaire yi toll. waaw moom. ñu ngi hmm? waaj. ñu ngi waaj <laughs> projet bi mu ngi ñëw waa. ah waaw mais avant projet bi am na lu ma war bis gaay yow waaw yow daa mel naa pare de. bu affaire yi toll da ne ma projet baa ngi ñëw. projet mu ngi ñëw instant instant bii nii. Mhm. ñu ngi ñëw yenn mën nañ ne yenn yi nañ ko. Mhm. waaw yeneen yeneen affaires yi ñu ngi si répétition yi. comme ñëw yàggatul daal. mais avant projet bi am na lu ma leen ñëw may nii incha allah xam naa. exclusivité si décembre bi la. ñu ngi ah. xool wala janvier bi daal. am na benn clip bu war a ñëw incha allah. benn clip bu war a ñëw foog Piscos. foog. piis xoos. maanaam. nañ bàyyi tuuri. <laughs> ah déet déet comme que exclusivité nga ñuy may. si mais ñamal nga ñu. mais dañuy expliquer mu leer ñu xam. waaw foog piis xoos nag. Mm-hmm. voilà maanaam nekkoon lu ñu gënal maanaam ñu denc ko tuuti. piis <laughs> parce que. xam nga amul denc danga ko fi wax day leer quoi maanaam may ñu tuuti ñamal ñu tuuti ñu comprendre. Euh, titre euh, focus xoos bi mooy titre sound bi. waaw ah, mais ah, voilà. mais ça parle beaucoup de choses. dafa jot <laughs> bu jotee rek incha ah. day ñëw. mais en dehors en dehors clip boobu. Mm. yaa ngi waajal quelque chose d'autre que ce soit benn produit wala. pare nañ parce que bi projet bi dañ avant moo ñëw dañoo waral blancher benn deux clip yoo xam ni. Mm. war na ko mën a jëmmal quoi. ok waaw instant yii prime yooyu ñu ngi si kawam nii nii nii nii ma lay wax nii. projet bi maanaam maanaam projet bi pare na quoi. projet projet pare na mën na pare na. lan la album la wala wala EP waxaguñ lan la nag mais projet la daal. projet la rek mais projet la mais waxaguñ dara. ah bientôt mën na nekk album mën na nekk mixtape mën na nekk max mën na nekk. émission démarrage macha allah man dama man dama man man damay sawar si yii des fois di waay boo yi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy oser. Hmm. dañuy liggéey dañuy wane seen talent. donc euh, lii tamit ça le ça le prouve en tout cas ñun euh, on est là pour tout le monde ah on est là pour tout le monde amuñu kii grand la amuñu kii petit frère la. Mm. donc ñëpp ñi nga xamante ni am nañu talent. Mm. dañu leen di taalal suñu loxo ñu ne ñoom it ñu taal ñu seen i loxo. Mm. ñu invité leen ñu ñëw fii ñu yaatal ñu waxtaan si ñoom si seen carrière ñu waxtaan si ñoom si seen euh, si seen i bagages yu ñu nekk parce que loolu rek moo ñu tax a jóg. juste pour promouvoir les artistes pas autre chose. donc gars yi nañ nañ si bàyyi xel quoi. émission bi loolu mooy. dilam mhm. waaw ah, comprendre ngeen mhm. ah, mais nag xam naa ni du du du du yàgg mu jeex parce que mhm. instant yi waa régie ñu may def si mais xam naa ni du yàgg mu jeex mais tey melokaan oui en tant que artiste et porteur de voix tey boo amoon message bi ngay lancé askan bi ak surtout aux jeunesse bi nga xamante ni mu ci dëkk bi waaw message nga message bu ñuy lancé suñu moroom yi suñu moroomu yaay yi xam nga mooy ni que pour le moment dañu nekk ci année scolaire nañu veye ci jàngum xale yi loolu laa am lu may wax. Euh, parce que benn xale du war a jàng xam nga. nga bàyyi ko muy taxawaalu bàyyi 23h minuit xam nga. Mhm. nga ne ko kaay tëdd mu war a yeewu benn 6h du matin. Mhm. kooku noonu nga bëgg ci moom réussite du sotti quoi. Mhm. parce que ñun ñëpp maanaam jaar nañ école quoi. mais ñi nga xamante ni seen jàng sottiwul du manu ñëpp mais am na ñoo xamante ni maanaam genre boobu moo tax mm-hmm. maa ngi ñaan parents yi daal xam nga ñu veillé ci éducation xale yi waaw di wax tamit euh, sama moroomu artistes yi mm-hmm. nañu gën a bàyyi xel ci seen entourage mm-hmm. parce que li may wax rek game bëri na ay talent quoi surtout sunu génération mais ñu bëri bàyyi nañ hip hop grâce ak seen entourage moo tax maanaam da ngay am benn staff xam nga benn collaboration ñu dem ci biir découragé loola xam nga mhm. bul bàyyi quoi yow gëmal parce que li may wax rek am gëm du foo quoi bu melee ni koon mhm. mais danga war a gëm ni yaay daan ba mel ni toon yi mhm. waaw c'est ça parce que tamit euh, il faut que ñuy comprendre aussi que art bi en général dafa laaj un encadrement bi nga xamante parce que des fois da nga gis artiste bi nga xamante ni du xam fan lay taxaw carrément. nice donc il faut que ñoom ñu leen di accompagner ñu dem ñu wuti xam-xam. Mhm. ñu mën a dugg ci milieu boobu te y' a pas mal de formation bi nga xamante ni mu ngi am. ci culture yi. waaw ça euh, le hip hop ou autre chose. donc nañ dem ñu jàngiwaat ñu xam nan la ñuy mën a encadrer seen i seen i artistes. parce que loolu tamit dafa dafa dafa am solo. waaw loolu aussi di ci di ci di ci rafetlu tamit xam nga am na ñu si jël ay initiative mm-hmm. ñu si mel ni waa Ramb Kër Massar. Mm-hmm. xam nga ñu ngi def ay jéego yu nice. Mm-hmm. bien vrai que si laa bokkoon mais temps bi ma ko maytoon mais vraiment depuis boobu maa ngi gis ñu teg ay jéego ak euh, am na benn streak boo xamante ni jàppatuma tur bi mi ngi nekk yëmbal ay ñoom ndobin ñoom kalpong gars yëpp ñu ngi ci biir xam nga loolu day dekkil hip hop quoi te hip hop dafa bokk ci gaal seen waaw aar la quoi te aar bi ñun ñoo ko ëmb mm-hmm. waaw yes dafa am solo mm-hmm. dafa am solo Wiz Bling euh, tey boo amoon message bi nga xamante ni yaa ngi koy lancé. Mhm. par rapport jeunesse bi par rapport aussi ak li euh, nga xamante ni situation dëkk bi. Mhm. tey ban grain de nga si sànni. yaa waa loolu moom dama ciy saar wax quoi. Mhm. waaw parce que fi instant bii nii nii nii li métti nit ñi bari na quoi. voilà xaalis amul len amul xam nga am day yëngal gars waa di wax gars yi ah. parce que tamit gëm-gëm. tey jii nii nii nii nii nit ki ku nekk li nga gëm. di leen lancer message maanaam nga jàpp sa gëm-gëm am ci gëm-gëm gëm ni yow li nga nekk incha allahu rabbi dina mos a ñëw baax quoi waa di wax tamit di wax gaay comme sa sa sa mbokk yi sax laay wax quoi gars yi nañ booster booy jàppale booy ñu dem quoi surtout si niveau euh, kii hip hop bi milieu hip hop bi quoi mhm. nañ jàppale booy bu baax a baax a baax parce que tey mën naa ne ñoom fi ñu yegg dañ leen jàppale ñoom tey bañ yegg fa mhm. parce que am naa parce que yooyu yooyu boo gisee ma ciy wax mhm. dama ciy sax parce que man su ma taxawee émission dama koy wax parce que man naa ay DJ yoo xam ne tey jii exemple pour ñëw te booy foog ñoo ne da nga leen di fay mm. laaj la mënin non ñun gis naa ko non dama ko gis dama ko la lu am la aussi am la quoi du benn émission bi aussi laa ko mos a wax tamit. Mhm. waaw mais du yéen quoi yéen moom mooy loolu yéen yéen a ñu fekk suñu prise. def surprise woo ñu xam nga. Mhm. waaw mais par rapport ak di ñeneen quoi am na ñoo xam ne sax dañ lay woo ne la dama laa bëgg invité. jàppale jour ne la léegi da nga may envoyé transport. alors que yow ñun bu ñu génne woon produit doo ñu bëgg a découvrir. noonu la demee dañuy wax tamit ci loolu. noonu la demee Mm-hmm. ñun. Mm-hmm. l'ASSP TV. Mm-hmm. je le dis et je le encore une fois de plus. on est là pour promouvoir les artistes. amul ma Samba amul ma demb nouvelle génération bi ak ñu nekk ci kaw. ñépp ñi nga xamante ni pare nañu pour ñëw SSP TV wala SSP TV fekk ci leen. tëjuñu suñuy porte. voilà. doxuñu si si yooyu. parce que parce que parce que animateur bi tu es là pour les pour les pour les artistes. tu es là pour promouvoir les artistes quoi. tu es là pour nga nga won leen quoi. Mm-hmm. comprendre donc tamit bu leen jël ñëpp ngeen généraliser ko dugal ko si benn. sax parce que chaque règle a une exception du ñëpp sax du ñëpp. waaw du ñëpp quoi. waaw waaw kon kon am na yenn gars yi nga xamante ne. non SSP bokk ci <laughs> yeneen ak yeneen mais. Ah, bii moom gàcce nga la waaw. dañ ma doon classe de bisan tey maa ngi répliqué. dañ ma doon classe de bisan tey maa leen di classe. waaw di wax di di di di wax tamit di fàttali gars yi Ndiaye. waaw di bëggee billing staff bu baax samay staff. parce que jàpp nañ ci carrière bu baax a baax a baax. Mm-hmm. samay ménageur gars yi maa leen bëggee sama gars mm-hmm. di leen wax tamit projet bi bu génnee. Mm-hmm. am na luy ñëw. xam nga xam nga wiis nag <laughs> xam nga sànq jox nga ma fii benn benn benn benn cos yëggali woo léegi nga ñëwaat di waxaat di naan projet bi bu génnee. projet bu génnee yow loolu j'espère yaa ngi nañ see sànq. concert bi mu ngi ñëw naka gars yi waajal. ah mais da nga ne concert baa ngi ñëw yaa ngi waajal concert. yeah Wiz mën na ne show. Hmm? Wiz mën na ne show. Wiz mën na ne show. yeah. à mois d' avril incha allah. incha allah rabbi yàlla na yàlla may fekkee. amiin te tal ko incha allah l' essentiel comme comme comme je hmm. ay jeunes ngeen. Hmm. ay jeunes ngeen dañ leen di war a may maximum de temps nga xamante ni ñu mën leen a xam. Hmm. ngeen mën a liggéey aussi. parce que foog ngeen di liggéey parce que carrière ngeen bëgg a def je le répète. ku bëgg a def carrière da ngay liggéey nga jël sa temps. looy tàggatoo. waaw alhamdulilah laay tàggatoo sant yàlla ginnaaw moom ñu may ñu taxaw wax xam nga def lu naaj si émission bi. di leen wax tamit merci à SP TV séeréer bi production li naaj na quoi. waaw même ñu dul ñun sax xam nga ñi nga xamante ni bokk nañ ci game wala melomaan yi dañuy bég ci lii li dafa manqué ci temps bi xam di wax ni nag xam nga job bi yemul fii nañu bàyyi xel le 10 décembre incha allah mooy sama birthday ci laa war a génnee benn single incha allah waaw jagleel ko mois de décembre bi après loolu noonu projet yaa ngi teew waaw di wax sama gaay yi euh, wala ñuy seetaan émission bi neleen melo ñaawul dafa ñàng mm. waaw <laughs> di tuub <laughs> sama gars yi ñoo métti sama gars yi inspiration yu graaw la ñuy am donc sama gars yi. Euh, oui je pense que yow tàggu nga wala. non nice non nice. man waaw xanaa ñu doole si tuuri rek. ay gars ñu wax vraiment tey am nañ mbégte ak contentement bu baax baax baax. <laughs> parce que lii yombul. yombul. xam nga ba ngeen koy def bu leen neexoon maanaam ngeen choisir leneen ak ñeneen ak ñeneen indi leen ci plateau bi waaw mais tey mu ngeen gisee booy yi nekk ci yoon di dem mm-hmm. et que ngeen jël leen indi leen pour may leen benn visage gars yi gis leen mm-hmm. vraiment loolu dañ ci am mbégte ak contentement bu baax waaw di leen wax nag du am fi incha allahu rabi bëgg nañ bu baax baax di bëggee SSP TV bi ñëpp incha allahu rabi jaajëf Mister Am jaajëf sama gars ñaar ñi ñoo fi nekkoon ma meen melakaan from laaxira meen ah, ay waay aljanna meen et ma meen wiis bling aussi tu vois donc euh, am nañu vraiment contenté tamit recevoir leen ci plateau bi mm. xam naa ne rek euh, damay remercier bu baax a baax sama équipe technique nga xamante ni ñu ngi fi toog di béggee bu baax a baax ma meen Mister Pino di béggee bu baax a baax sama caméraman Pape comme d'habitude dama ko sonal ma man su may def émission moom dama ko may jàmm di jaar de la SSP TV la télévision qui fait la différence la télévision de la banlieue donc gars yi je le répète bu leen fàtte bës leen cloche bi ngeen abonné si seen chaîne ñu ngi leen di joxaat rendez-vous bientôt incha allah pour votre nouvelle émission cent hip hop Galsen NF ADN am out.